chaque jour problème day posé fan yee ñu génne gis nañ ne mu mbëri la woon ak waa CNG arbitre ak waa CNG déggoo amateur ak waa CNG déggoo promoteur ak waa CNG parfois sax nga gis ñu xaw a kii tuuti gi déggoo manager ak waa CNG ñu gis ni deux camps rek chaque jour mooy am problème pour yow làmb coow li foofu la war a yem wala ñoom ñëpp dañ cee war a bokk. non xam nga tey nit ku nekk rek da ngay défendre sa position am na ay promoteurs yoo xamante ni ñoo ngi CNG CNG amal na leen njëriñ jàpp nañ li CNG di def baax na am na yeneen ak yeneen nag yu si am yaa xam ne jarul wax ci tele loolu seen affaire bopp la. moo tax euh, du yomb trop trop trop te et sax moom promoteur jàpp naa ni warta am coow ak CNG. ndax war ñu mën a am coow. promoteur day ñëw tëgg ay mbaam régulariser fay li muy fay. organiser journée mu jaar gauche CNG jaar droite. Uh-huh. bu dee mbër ak waa CNG. mais c'est normal parce que mbër CNG moo koy dagg. moo koy imposer ay loi moo koy wax ne ko soo ñëwee heure bi dinaa la dagg nangam CNG moom day dagg rek. Uh-huh. waaw dagg ak aj kay ñoom ñoo ci Alioune Sarr mooy si uh-huh. ah seetal rek li ma CNG. avertissement yi ñuy joxe. su dee benn ñaar ñett. xaalis dugg ay dagg rek moo tax mu ñoom mbëri mënuñu juboo. Mhm. Ah. mais xaalis tamit nekkul ni ñoom ñoo koy ki ñoom it. ñan xaalis bi. Ah. demul seen poche. ah wóoruma de man xamuluma leen dara wax dëgg ndax yàlla. Mhm. Alioune Sarr. Ah. liggéey bi mu commencé liggéey ndax yéen a koy naan vingt cinq ans c'est trop. Mhm. liggéeyam fan nga d'accord ak foo d'accord. non xam nga tey. déjà man dama jàpp ne fi mu toll nii. làmb puusul. paasul. ndax nga ne pusul paasul. man réforme yi ma doon xaar tey ñu indi ci làmb def ko. Mhm. tey soo xoolee drapeau chef de l'état chaque année loolu mooy am. la amoon mooy amaat. rek dem si benn région bëri. Mhm. après drapeau chef de l'état fàtte nañu. loolu daaw sax soo ma laajee daawaati géej ñi ko jëloon sax ni ñi nañ leen di fàtte. kon loolu baaxul bas jàppal non waxuma ne baaxul de. Ah. mais dañ ko war ko waaw ah. waaw benn ñaareel bi. Mhm. équipe national lut bi fu ñu mënti dem gagné ay prix ak ay ak ay médailles suñu ñëwee la war ci ñoom jàpp naa ni defaguñu ko ñetteel bi mhm. mooy ñoom ay règle yu ay luwaa yu bees rek la indi indi nañ loi nangam indi nañ loi nangam indi nañ luwaa nangam mhm. dagg nañ nangam yokk nañ nangam wàññi nañ nangam kese mhm. mais làmb du loolu xam nga tey par exemple Euh, dix-neuvième siècle football kenn daaw ko pratiquer mais dafa am nuñ ko doxale ba tey àdduna bi ñëpp moom nañuy pratiquer presque tey su équipe nationale doon football Léopold Sédar Senghor day fees dell te am na yenn combat xam ne su ko fa yóbbee du fees parce que tey ñëpp dañoo mujj di ko pratiquer ndax mhm. dañoo jël seen temps saytu ko xool li nga xamante ni tey war nañ koo def pour muy mën a attirer sponsor yi. Mhm. indi si ay réglement yi nga xamante ni. Mhm. tey euh, doomu aadama yi jàpp nañ ne lii lu nangu lu xel nangu la. Mhm. di progresser gis nga léegi ay vaar ak yooyu yëpp gars yi dañ ko mujjee indi. pour bañ polémique. mais loolooy doxal dara. mais soo ko bëggee téye point mort rek yaa ngi dégg su dimanche jotee ngeen yor seeni ay feuilles ñëw toog. yéen xooloo leen lu dul mbër mi tardé nag nga dagg. mbër mi butéel butéel yu ëpp nga dagg mbër mi ngembam def na nii nga dagg mbër mi taxaw na wax ak diw nga dagg yéen bokkoo leen écurie nuyonte ngeen nga dagg <laughs> non mais na <laughs> waxante dëgg ah. ah mais loolu rek dañuy indi ñoom ñoom dañuy dagg rek. Ah. Ah. kon da bëgg wax ne daal ñoom la fa nekkoon ba léegi moo fi nekk dara changé wu. ci daal man damaa jàpp ne dara changé wu bon bien vrai que nag Alioune Sarr dañ koy féliciter parce que tey li mu li mu def ci làmb aussi. Mm-hmm. Euh, luñ ci mënti mënti wax. Mm-hmm. am na fu mu yóbbu la am. loolu moom euh, il faut que nit ñi reconnaître ko. Mm-hmm. mais peut-être que sûrement xam naa vingt cinq ans xam dafa yàgg. Mm-hmm. xam naa dafa fatigué. sonn xam naa fi mu toll nii xel mi moo mooy mooy xam nga ak liggéey bu bëri beeg. Euh, non Papa Alioune Sarr sonnul de. non niru na ko son nag. non <laughs> Kéba kon 109 bi da nga cee d'accord. bu baax. da nga d'accord ci 109. ah mais xam na c'est-à-dire aussi li ma wax keroog rek mbooloo kenn du mënut continuer di leen tànnal njiit. dañ leen di bàyyi ñu tànn seen njiit CNG tollatul fa nga xamante ni dañuy jël nit teg ko fa dañoo toll fa nga xamante ni dañuy dem élection mais CNG kan moo fi teg <laughs> mais kan moo ko fi teg démembrement waaw mais Alioune kan moo ko fi teg du ministre des sports waaw te ministre des fu mu bokk fu mu bokk ci lan si ah, état dañ ko fee teg moom nekk ko fa teg hmm. dañ koo fal <laughs> mais euh, suñ papa Alioune Sarr moo ko fi ah, moom laa la wax. Mhm. la. Mhm. xam nga tey football. Mhm. ki ko jiite kan moo ko fa pourtant man maa lay laaj de. man non laajoo man eh, eh, man maa lay man maa lay ma non man instant bi dama man maa lay posé ngay répondre. Ah, ko sa bopp. Ah, yow man du ma ah, répondre. <laughs> ah Basirou. ah Basirou waaw jeex li si topp mooy. Hmm. ndegam gaaru Thier sax nit ñi dañuy voté pour xam président gaaru Thier gaaru Thier laa la. gaaru Thier waaw mosoo xam loolu. Eh. ak balaa ak CNG nga xamante ni ñaata mbër ñoo am ak ñaata amateur. <laughs> kon da nga bëgg kon da bëgg daal tey CNG comme Keba mais ñu bari lu ñuy laaj que ni yow pourquoi nga bëgg a dugg ci kiw CNG bi. non xam nga tey soo nekkee si mbir di si yëngu. Mm-hmm. ba jàpp ne war nga see am loo ci mën a def. Mm-hmm. mais jaadu na aussi nga ne nañ leen dem ñi nekk ci làmb. Mm-hmm. suñ ma falee baax na suñ ma falul ma continuer rek def li ma doon def si si si làmb si juste ça. loolu la rek. mais yow am nga loo xamante tey euh, Alioune Sarr ñëpp xam nañ dafa compétent. yow est-ce que yow compétent bu mi ci yow mën ngaa changer lépp ak làmb ni mu méttee yaatu xam nga ñi nga nar boot yëpp. loolu moom xam nga suñu demee du ma ne sax su yàlla defee ma yor ko. Mm. waaye suñu demee ba jublu si li nga xamante ni wóor na ma ni ñii élection nañ jëm. Mm. ah su boobaa nag dinaa wax sa dinaa wax la ma xalaat ci làmb yëpp. mais pourquoi président CNG. ah non mais tey dafa am. benn affaire ba nga xamante ni tey pour nga manœuvrer ko piloter ko faaw nga nekk ci bopp bi. ok. faaw nga nekk ci bopp bopp bi. Uh-huh. est-ce que Kéba bëggul accéder ci kaw comme cabinet bi ndax xam nga gars foofu dafa xaw a neex. cabinet fan. ah pour bëgg bokk ci kii bi ci biir ci kii bi parce que ma boo nekkee bas boo nekkee président CNG il da ngay am accès ci cabinet bi. da bokk ci cabinet ministre des sports. waaw non loolu xam nga <laughs> non saa loolu. <laughs> non si parce que tamit xam nga keebaa tey bu dee CNG amul xaalis. waaw Kéba macha allah am na tur. mais ñu bari loolu la ñuy laaj ko du ke parce que ah, man dama ne keebaa laay seeti mais ñu bari ñoom loolu la ñuy toog di poser question boobu noonu. kon kon kay saway nit ñi war a xam ne dara taxuma see. dugg lu dul bëgg a defar rek. mais est-ce que du foofu noonu pour gën a mën a am accès xam nga pour. am accès si lan. ah voyager kii pour extérieur affaire yooyu. voyager ah, mais tamit. Euh, Kéba xam nga tamit euh, tey Kéba Kanté ñëpp xam nañ la que ni. yow macha allah man de defal ndànk rek. Mm-hmm. man si réew mi laa juddoo. Mm-hmm. màgge fi. Mm-hmm. jànge fi. yaroo fi foowe fi. musuma génn Sénégal lu mot trente jours. li may tukki yëpp dama koo bëggut dara dàqaluma ci àddina dimanche jot ma sangu solu dem làmb ja seetaani kon pour voyager pour lan mais pour pour pour mën a yokk comme. yokk lu may yokk. ah looy yokk kee ba parce que kenn ku nekk ñan na yàlla ci li nga nekk tamit nga yokk ci tuuti mais tey boo ñëwee boo nekkee président Alioune Sarr. tey ci nekkee euh, di nga am président Alioune Sarr xaw a kii sax tey boo demee ba nekk euh, président. Mm. du CNG nga diriger ko. ñëw am euh, bokk ci li nga xamante ni moom mooy bureau bi nga xamante ni moom mooy accéder au some ban sommet. ah. Matar Ba moo la wax man nekk ma au sommet. <laughs> mais wuy ma tey boo jegee Matar Ba. Ah. ma euh, boo jegee Matar Ba après ñu demaat benn instant xam loo xam te ni euh, président moom moo koy fa keebaa léegi est-ce que nekku ne jéeg yooyu la bëgg a dem dem pour bëgg a mën nekk sax ministre des sports. moo tax mu bëgg a dugg ci affaire yooyu noonu. Mhm. loolu yaakaar naa ni soxla wuti wuti c'est Alioune Sarr ñaata at ñaata ministre des sports ñoo dem bàyyi ko fi. ah mais tamit peut-être choix boobu dafa ñëwagul rek. waa non ñaata ministre ministre des sports ñoo dem bàyyi ko fi te moom nekkul ministre de sport wala nekkul ministre de la santé yooyu ay waxi caaxaan la. Mm. ay man ñaan naa yàlla. Mm. man damay politique. kon su fekkoon ne loolu la kese. Mm-hmm. pour dem accéder si benn post kon mhm. yaakaar naa ni am na yeneen yoon yu ñu mën a jaar pour pour pour def ko. ok mais du doon CNG. ok kon daal lañ cee man am na benn ministre du ma ko fàtte mukk. Mhm. du ma tudd turam nag. Mhm. dama ko mere wax jooju ba ci kanamu yàlla. 2012 dafa jàll mu ne ma ñu daje mu ne ma yow yaa ngi yaa ngi topp yaa ngi topp mbër yu dof yooyu ba léegi. ma ne ko monsieur le ministre ma ne ko pourtant balaa ngay nekk ministre ñi ngay wax ne ay dof ñoo maag ñoom ñoo doon ànd te maa la doon booleeg ñoom ñu lay garde <laughs> donc yaakaar naa ni. Mhm. loolu làmb fi ko nit ñi teg ak fi mu nekk. Mhm. man tey j'ai donné l'exemple man bi may nekk ci politique kenn du weddi ne daanañ gis Kéba mu ànd ak Jokal dugg ci biir géew gi est-ce que dugg ci mo bi ma doon dugg ci géew gi dañ ma si doon fay yow lay laaj. ah mais Kéba man yow kay non du question fay parce que tamit mën naa am tamit fay bi tamit xam nga loo xam daal ndax boo yéen àndee ak mbër su ma mbër mi la ñu war a fay. mais pas Kéba. ah kon kay jeex na. Mhm. te mbër mi biñ koy bi bi may bi may njëkk ànd ak moom ci géew quatre-vingt mille la doon fayeeku. Mhm. donc yooyu ay détails la ay ah. dafa bëgg a jaar fii jaar fee yooyu moom. Mhm. damaa jàpp ne ay ay waxu naxas a xëndëng la nga baal ma ci. ci expression bi. non pour ñu ko xalaat. ah mais Piqué ba xam nga instant bi pour nga gis nga yaa ngi nii xam nga géew géew CNG dafa métti de suñ papa Alioune kenn du moom ñu koy nuyuwaale au passage dafa métti. père maa ngi bu baax wala maam kon ko nee na ma ko waxati père maam Alioune Sarr maa lay nuyu bu baax. Hmm. mais ñu dégg yéen ñëpp naan vingt cinq ans de pouvoir doy na doy na. ah mais tey jii waxuma la dara sax. président Ablaye Wade bi mu fi bëggee def troisième mandat àdduna bi yëpp jug Sénégal gi yëpp jug ndax lan dañoo jàppoon ne doy na na dem bàyyi ay moromam ñu ñëw. te pourtant liggéey na fi lu ne. mais père am na nu mu leen tuddee de. nan lañ tuddee. ah neen daal di wax ak muus yi ak musti gi. ah. te su ma juumul muus yi mooy arbitre de musti gi nag su ma juumul mooy saa <laughs> <laughs> yaakaar naa ni menn man la fi mën a woowee moustique de ah. menn man maa fi taxaw di leen dama bëgg naa CNG te nañ dem élection mm. xam nga loolu dama koy yóbbu mm. benn euh, histoire mm. xam nga Tour de Babel Tour de Babel waaw xam nga ko xam dafa amoon benn euh, benn buur dafa demoon ba jàpp ne moom moom moom àddina bi yëpp Nimrat la tudd bi mu demee mën naa ko yàlla benn benn moustique la ko booleel. Ah. mu dugg ci biir bakkan bi. <laughs> kon su fekkee ne man moustique la ma wooye. Ah. waaw moom na nangoo nekk nimraat man ma ah. nangoo nekk moustique bi rek. mu dugg ci waxu bakkan bi ah waaw. bu <laughs> dee ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV ñu jàkkaar ak ki nga xamante ne mu nekk koo xamante ni kon nii rek moom nii la mel de nature ñëpp nag xam nañ instant bi li mu bëgg a dugg ci muy ci géew bi nga xamante ni. mooy fa la ñu bari bëgg a dugg nag muy CNG instant bi dafa yëngal jamono ñu gis ni ba léegi. mais ah. mais doguma la foofu. bëgg ah, ah. si bëgg a dugg mais kenn ñemewut a taxaw wax de. ah ñii géew bi yow est-ce xam nga ne am na ñoo ko bokkal làng gi. mais dañ looloo gën a yomb. Hmm. mais ñu bari dañuy xalaat euh, ñii ne Mouhamed Ndao Tyson. Hmm. waaw. donc ni mën naa yor CNG. ñii taxaw ne ñii dégg waale sax tamit euh, kii du euh, fallu Ndiaye ñu koy nuyuwaale au passage muy wax ni am na yaakaar que ni CNG euh, ñoom promoteurs yi am na ñu ci mën a yor CNG parce que faru faruñu fenn ñu déggaat am na sax tey ku ma benn gaañ bu ma dégg mu naan pour quoi sax ba tudd arbitre ñu gis ni gars yi ñu ngi cité gars yi pour ñu ñëw yow mbër mën naa diriger CNG ou pas. xam nga Tyson nekkatul mbër. Tyson aussi man jàpp naa ni su fekkee ne fal la maanaam ñu ñu def arrêté jàpp naa ni waruñu koo mën a fal foofu ndax la waruñu ko mën fal mais su fekkee ne élection la mhm. nga fal nank rek monde làmb d'accord ne Tyson war naa mën a yor CNG. Mhm. mu dem élection suñ ko falee mu jiite lool la rek xam nga fi mu déwl nii mais mais mais bu élection amul waaw li tax nga ni Tyson mënul jiite euh, CNG non dama jàpp ne mhm. moom déjà si li ma jàpp CNG moom ba mu fay dugg kàddu mbër yi bokk na si li taxoon ñu dugal ko te ba mu fa dugalee ba léegi gisuma problème yi si am yëpp mu génn àddu si dégg ko mu wax non te tudd moom kese moom laay ay Aziz Ndiaye. non moom mën nañ comprendre. ok ñoo ngi koy jaalewaat. ak soxnaam soxnaam si. Père Gaston génn wax position Ah, non après kay dinañ ñëw ci Père Gaston. ak Yékini. mais Yékini moom nee na dem na gis na lu mu xamul toog na. kon wax na position kon yow bu dee Tyson bu dee fa ñàkk fal euh, mën nañ ñu ñëw rek taxaw ne non léegi désormais Tyson moom mooy diriger nga ne li tax Tyson mënul diriger. non xam nga tey Tyson ñëpp xam nañ ni nekk na fi mbër. amoon na fi contentieux ak CNG. am na fi contentieux tey jii ak. ñu baree bare ci wàllu làmb te tey jàpp naa ni am na la nga xamante ni moom image la si moom bu mu indi ci biir làmb te jàpp naa ni loolu warta nangu sax CNG di ko yàqal ko genre par parloo bi waaw non war ko sax nangu moom ok kon dama jàpp ne su fekkee parce que tey man damay wax si sondage xam nga ah. tey man Tyson ñëpp xam nañ ni sama grand bu baax la hmm. mais bu ko jigéen ñi nag ah dafa nang jigéen ñi ma ko damay wax li may wax dafay dama bëgg mu leer. Mm-hmm. ñun am nañ ay relation yu ñu seq lu rafet ma moom. sama doom mu ndaw bi moo koy ngénte bokk na si fi jiitu lu rafet nañ seq ma moom. Mm-hmm. mais dama jàpp ne mondu làmb. Mm-hmm. genn wàll gi yëpp d'accord ñu si. ok ndax nga ni d'accord ñu si rek. ah mais ñoo ngi ko wax Fallou Ndiaye wax na ko. non Fallou Ndiaye instant bi ñoom seen po kenn ku nekk fa nga nekk sa position mais li tax waa monde làmb ya pour yow li tax bokkuñu ci. waaw mais xam nga tey wax naa ko keroog ci benn interview. Mm-hmm. Tyson tey su génnee. Mm-hmm. sanctionné Eumeu Sène. Mm-hmm. ñu ne ñoom ñaar dañoo moon problème. su génnee sanctionné euh, nu mu tudd. Euh, euh, ku mel ne Ama wala. wala Balla Gaye wala keneen. xam nga tey. dafa am lu lu leen boole woon ñoom muy dugg ci biir géew yaa ngi dégg ñoom looloo leen boole woon léegi tey su nang su naree ñëw nar leen a coiffé mais bëri na ci ay mbër ya nga xam ne duñ si nangu duñ ko nangu léegi nag loolu dafa am xam nga man ba tey dama bëgg samay kàddu mu leer dama ne Tyson su fekkee ne moom moom déjà génnul wax ne bëgg na CNG. mais nit ñi ñoo ko kii. yaa ngi dégg. Mhm. peut-être que ni moo ngi koy wax ci suuf mhm. mun na ne. Mhm. parce que communication moom. Ah. am na façon bu ne. Mhm. te moom dafa mën communiquer. waaw léegi nag su fekkee ne nag bëgg na dëgg CNG. Mhm. wala fekkee ne dafa bëgg toog. Mhm. xam nga nag nante la. boo gisee muy aj bopp bi nii nante la ka yeewu. <laughs> mën na toog ne cell nii di lijjanti di lijjanti di lijjanti lijjanti ba gaay xëy tabb ko. yaa ngi dégg loolu dafa am lu ko gën. man daal. képp ka nga xamante ni bëgg nga man moom nëbbuma sama bopp. Ah. Père Alioune Sarr. xam naa yaa ngi may seetaan. ñu bëri nag woo nañ ma naan ma ay. àdduna fi nga bëgg a dem kenn waru koo xam. Mm-hmm. man nëbbatuwuma làqatuwuma. Mm-hmm. ñaan naa yàlla bis boo jógee si CNG ma ma ma ma ma ma la. mais yow mais ñeneen ñi nga xamante ni tey. Mm-hmm. dañoo bëgg ba pare di làqatu. nañ ñëw ñu dem élection monde làmb ku ñu tànn. ñu xam ne monde làmb moo la tànn. mais daal ku ñëw daal da bëgg léegi affaire ñu def ko par vote daal. par vote c'est facile. ëllëg si biir. tey jii xam nga tey kenn dootu fi wax ti yàgg na. ndax tey suñ ko defee mandat wu quatre ans wala cinq ans. su jotaatee ñu demaat élection. kenn du fi wax ne yàgg na. monde làmb amul kenn ku fi jug naan yàgg na fi. ñoom ñooy fal ba heure bu ñu doyalee ci moom mu dem. promoteur mën naa yor làmb. mën naa yor euh, CNG. ah oui mën na ko yor. parce que xam na tey organisation làmb li nekk ci biir. Mhm. te CNG tey dañ ko def pour pour mu organiser làmb ci ok promoteur mën na yor làmb. kon daaw d'accord nga promoteur ñëw yor làmb. Aziz Ndiaye mën na yor làmb. Mhm. non Aziz moom instant bi làmb moom. non man ma ne na koo am na non pas kenn fii fii ku si nekk am nga liggéey bu la tënk. Alioune Sarr am na liggéey bu metti bu ko tënk. xam nga tax ma xooloo mooy comme seen yi comme làmb dañ ko koo tere ba jiital rakk ji. waaw comprendre nga moo tax may wax loolu. non non moom est que ah, nga yore làmb ak tëgg làmb duñ benn. ok mhm. parce que tey euh, jàpp naa ni. Mhm. Euh, tey ku mel ne Aziz. Mhm. bëri fi. pourquoi pas Manga 2 sax Manga 2 war nañ ko mën a boole si loo bi. comme que yaa ngi woo sa adversaire yi nag. <laughs> Ah, ma leen de. <laughs> ah la sa xel nekk ci Manga 2. non mais xam nga non exemple laa la jox suñu nee Tyson. Mhm. fu ñu ne Tyson rek war nañ mën a wax Manga 2. wala Yékini wala Yékini mhm. wala Moustapha Gueye. Mhm. mais pourquoi pas. wala Rock Mbalax. borom 1200 prises yi maa ngi koy nuyu au passage mais ñooñu ñëpp non bu ñu lim rek kenn. Ah, ah. ñoom képp ku képp koo xam te ni làmb kii na la rek mën ngaa ñëw. waxuma la sax ñooñu. Eh, mais nag wool nga sa bopp quoi ndax affaire CNG bi dégg naa mystique gi fi nekk. mystique wu lan. ah mystique wu lan yow instant bi da nga sa bopp parce que da taxaw. taxaw si lan. yow da taxaw ñëpp monde entier ñëpp di seetaan yow nga fi nga bëgg a jëm. mais loolu ah, am na ku la ngeen loolu si ngor la bokk. ok loolu si ngor la bokk. instant bi parce que fi nga jëm dafa metti lan lay nan maa ngi sangu ndox de saa yi ma xëyee sangu ba set. maa ngi naan ndox mu sedd guy tamit moo ngi nii ma teg. mais côté mystique bi ki woo ci laaloo ci lan lan mooy mystique. ah parce que ñu bari ma tooñ ko sax parfois ñu bari dañ naan suñu papa Alioune Sarr séeréer la te séeréer yi. Ah, man itam sama papa ah, euh. mais yaa ngi ñam ci mystique bi. lan mooy mystique. ah mais CNG CNG pour nga toog fi. waaw ne ñëw rek toog jël sa siis jàkka jàkkaarloo gars yi. loolu loolu du kii CNG. Barack Obama bi muy toog États-Unis <laughs> dafa sangu dafa naan wala yéen <laughs> a ko doon yóbbul bu tey. <laughs> mais xaw ma boobu du benn xaw ma bas tey Kéba yow liñ lay wax xam nga ko parce que ñëw yow doo jékki-jékki rek ñëw CNG doo jàkkaarloo sa siège ñu ne fal nañ la am na foo kii mais dafa mel da nga wóolu sa bopp. wéeruwuma ko si dara lu dul. Mhm. ñu dem élection. Mhm. su ma leen doyee ñu fal ma. Mhm. su ma leen doyul. ñu ba ma mu ñibbisiwaat nank. dem ci yaa ngi dégg di seetaan. di continuer di nekk jàmm ak mbëri. Mm-hmm. comme ça sax ma ma ma demaat xoolaat. beneen mbër. Mm-hmm. ànd ak moom. di dugg ci biir géew gi. <laughs> Ah. xam nga suma ma rombee waa CNG ne leen nii jàmm nañu loolu moom. Mm-hmm. foo rek. làmb ñun ñëpp. dañ fay ñëw uniquement pour jàppale ko. donc élection nag mënu see ñàkk a bañ am. su dee mbir mi dafa jaar yoon. mënu si ñàkk a bañ a am xam nga tey. bul ko bul jël comme kaaw ne ministre des sports dañ koo fal. bokkul parce que kooku discipline yi mu jiite moo bëri. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ka ko fal dañ koo fal. Mm-hmm. yaa ngi dégg bokkul nag ak ki nga xamante ni tey làmb la jiite muy lutte simple lutte gréco-romaine xam nga. Euh, lutte olympique ñooñu la jiite mais ñooñu war nañ ko mën a war xam nga tey dañuy wax problème bi rek lutte avec frappe lutte avec frappe lutte avec frappe mais am na lut simple a ngi fii lutte olympique a ngi fi. yooyu yëpp moo ngi fi te kenn waxu ko. CNG li mu war a defaraat moo bëri. Mhm. waaw. arbitre mën naa jiite CNG. mais pourquoi pas mais arbitre mu ngi si biir CNG di. Mhm. mais comme tey mu nekk ca bopp ba kon suñ Pape Alioune Sarr. mu nekkee ci bopp ba. bien sûr. ok d' nga ci. d' naa ci CNG daal saa yi. Mhm. li ma la rek. santan ñi nga mbër mi sax mën naa jiite CNG. ok dégg indi nag booy na euh, hmm. beneen bi mooy tamit gis nañ ni arbitre ak waa CNG ñu bari na ñoom ñoo far. ñu gis ñoom li ñuy kaas assurance ak seen 52 millions yooyu defe naa de pour bëgg ko leen ko yokkal ñoom Maalim Ngom 5 ans. Sitor moom sama waaj dañ ko rajee à vie moom nañ la yow da ngay génn làmb force Babacar noonu. pour le moment Dramé ah. pour le moment dañ ko rajee pour le moment. da nga pour le moment. ah mais gëm naa ne su su beneen président ñëwee dina ko indiwaat. kon avis bi du kii. pour le moment. ok décision Alioune Sarr ak ñi mu àndal la. Ah, kon yaa ngi dalal xelam. ah mais du daal dama wax dëgg rek. Mm-hmm. ñoom li ñuy kaas. waaw mais si seen droit nañ nekk xam nga tey soo nekkee ci liggéey. Mm-hmm. ku ci nekk rek bëgg nga avancé mm-hmm. ku ci nekk bëgg nga avancer sa liggéey. tey ñoom jàpp nañ ni war nañ am assurance. jàpp nañ li ñu leen di fay parce que dangay gis combat ñu ñoom ñoom xam nañ combat yi li ñuy li ñu fay fay li fay génn si xaalis. Mhm. mais dañ naan ñun itam ñun dañuy jël risque te et puis et puis loolu nañ waxante dëgg cinquante deux mille pour nga boole ko cinq arbitre jàpp naa ne su si passé aller retour. Mhm. yaa ngi dégg kon kay da ngay jàpp ne arbitre bi trois mille wala quatre mille lay fayee ko ba pare suy ñibbi dañ koy bàyyi moom kese mais CNG tey ñàkkul lu mu amee oto. su fekkee ne ñoom li ñuy woote dëgg ci ñoom. Mm. ne xam-xam baa ngi fi ñoom ñàkkuñu lu ñu mën a amee benn minicar bu ndaw arbitre yi ñuy jaar jël leen ñu su ñu paree delloowaat leen. ok ñàkkuñu ko. est que am nañ ko tamit. non ñàkkuñu ko. te mm. su su ma président Alioune Sarr wooyee téléphone. Mm. dinaa ko wax defal lii defal lii defal lii su demee léegi moo am minicar. Mm-hmm. Ah. kon loolu yomb na. non dafa yomb loolu. pour am benn minicar buy jëlee arbitre yooyu. ah non mais loolu dafa yomb. mais ñi wax ñoom ñoo far parce que dañuy nañu décision yu bari ñoom ñoo koy jëlandoo ensemble. waaw xam nga tey li ma la wax bi rek ku nekk yaa ngi défendre sa xam nga tey li nga xamante ni ñoom ñoo ko bokk muy làmb ji. Mhm. bokk nañ si ànd jël si ay décision mhm. mais li nga xamante ni seen yëfi bopp la. ñoom itam bëgg nañu yokk. ok ah du Alioune waxoon na fi mbër kenn dootu ko yi Euh, lu lu lu lu lu euh, cent euh, moins de cent mille. Ah, cent millions ah mais moom yéene woon na booy yi ñu yokk. te loi boobu gëm naa ni am na wuñu ko. ndax la ndax ah, nga respecté ah mais tey suñ la suñ la fayee cent mille jox la na la jaayal ñaari bloc. nga jaay 300000 kay wax dëgg dex yàlla yaa fay sa bopp fay promoteur bi. mooy joxe bee yi. waaw ok te loolu nag mënul ñàkk ci làmb ah. mhm. joxe bee mënul ñàkk ci làmb mais nañ xool nuñ koy rafetal. nga xool nuñ ah. koy rafetal waaw ñu dégg suñu papa Gaston mu ne arbitre ñoom ñoo war a mën a assurer seen bopp ñoom li ñuy kaas <laughs> du kii quoi dem na benn instant boo xam ne mu ne Alioune Sarr instant bi kenn mënu ko wutu daal nañ ko nañ nañ bàyyi mu liggéey liggéey. xam nga Père Gaston moom dafa far. ah ok. waaw mais wax jooju nan nga ko jàngatee quoi nan nga ko jàngatee. ah mais loolu ndax dafa xalaatam rek. dafa wax xalaatam rek. Mhm. fii àdduna bi képp koo fi gis rek mën nañ laa wutu. Mhm. yow mii tey micro soo ko tegoon tey. Mhm. ne bàyyi nga. dem feneen. suba ñu indi ko la wutu. waxuma sax dara àdduna sax laa la wax. kilifa laa la wax. su génnee àdduna keneen wutu waxante dëgg. c'est-à-dire que ku bañ sa ndono sa dee ñaaw. loolu mooy àddina. ku fi toog ne dee doo fi jóge la fay jëlee du la neex. CNG tamit tam su amul làmb du organiser promoteur su amul. yaa ngi dégg làmb du neex parce que tey ñaari mbër duñ ñëw daje naan dañuy bëre. wala tegal ma teg. mun na nekk nag. Gris Bordeaux mën na dem indi indi 30 millions Balla Gaye indi 30 millions ñëw non maanaam waxin laa la ko waxee quoi mais. tey promoteur CNG arbitre mm-hmm. amateur mm-hmm. ñoom ñoo bokk làmb mm-hmm. kon ñoom ñëpp ñoo far mais nag dina toll benn période ba nga xamante ni ku si dina am lu la naqari te su su suñu amee lu leen naqari man li ma jàpp parce que tey dégg naa ñu ne man dégluwuma ko nag ñu ne Matar Ba nee na du ci wax problème mu CNG mu CNG la uh-huh. mais moom bi mu xamee ne du ci wax warul woon woote bi mu xasee ba woote kay la ci dugal boppam. moom Matar Ba waaw. <laughs> kon donc li mu waroon def mooy. woo Alioune Sarr woo mm-hmm. arbitre yi ne leen kaay leen ñu toog waxtaan ñu trouver mm-hmm. ah, jàpp naa ni njiit noonu lay def. Mm-hmm. waaw mais boo seetaanee day indi farfarloo. ah non mais euh, su parce que tey euh, commentaire yi ngay gis. soo defee sondage interview bu nit ñi génn. wax ci CNG commentaire yi ngay gis. fu ñu dugal Alioune Sarr dugalaale ko ci. Uh-huh. Kéba te buñ la faloon lan ngay changer ci làmb. non dina bëri te loolu du ma la ko wax. non mais ñamoon ñu tuuti rek. parce que internaute yi instant bi. non non non ma la ko wax. Ah, mais am nga ay changement yu bëree bëri. ci làmb yu ah, ah. da ngay wax réforme. ay réforme yu bëree bëri. yoo xam te yaakaar ngeen soo ko defee làmb dina impec. déggoo li ma la wax. Mhm. dina dépasser fu ko nit ñi xalaat. Mhm. maa dégg euh, wax dëgg yàlla am sama benn naataango bu koy wax mi la ko si doon laaj comme par exemple manager yi maa ngi leen di tooñ sànq comme genre Matar Ndiaye. Matar day yor Alioune Sèye Junior. Hmm. yor mbay Guy gi. Hmm. combat boobu taxaw. Hmm. loolu rafetlu nga ko. benn manager manager fukki mbër Matar ñu ngi lay nuyu au leen xaw a ah, ah. ma non non non commencé di kii mais Matar. Ah, man daal li ma jàpp mooy. làmb dafa laaj ay réformes. que muy manager beeg. Uh-huh. promoteur beeg. Uh-huh. mbër beeg. Uh-huh. dafa laaj ay réforme réforme yooyu nag. su fekkee ne ñoom jug nañ si. dem élection ku ci nekk war wax li nga xalaat. dinaa ko ci wax. mais réforme boobu tam di ko changé. non déggoo li ma wax kay. maanaam làmb jëpp lay réformer benn ñaareel bi mooy su fekkee ne nag élection amut. dañoo tabb ki leen neex. man mën naa bind la may bind. yëkkati ko soumettre ko. ok mais daal yow élection exige non man pour man dafa war a am nag. bëgg neex yàlla waaw. waa frérot li ñu dese ci waxtaan bi presque jeex na parce que. <laughs> leneen li si topp mooy ma préciser waat. Ah. su ma tey ñu ne fal nañ ma man CNG. Ah. nga xamante ni arrêté la. suma ma demee deux ans. Mhm. man personnellement maay organiser ay élections. yow mi ah. pour indiwaat ñeneen. déedéet ah pour xamkat ba xam man. Ah, liggéey nga liggéey. dañ ma fee teg wala làmb ma teg. ah ok. loolu la ñuy wax démocratie. ok mais euh, dafa am benn point bu ma fàttee ba Bassirou nga baal ma muy gis nañ la nga ni ngay ngay expliquer ci mais yow mbër yëpp say xarit lañ. waaw. Sénégal ñëpp xam nañ ko. ñëpp kay journaliste yëpp say xarit lañ. ñëpp ñëpp xam nañ ko. mais mais mais comment ça fait tey boo nekkee président CNG tey Kéba relation ak Modou relation ak Balla Gaye ainsi de suite Sa Thiès ainsi de suite ah tey bu ñu waree aj benn benn Modou Lo Kéba. mu def li mu war li tax ñu war ko aj. est-ce que Kéba moom itam dina ko aj ah. ah. aj kay aj waaw. <laughs> bëri. dama koy mais koy convoqué. Ah. mu toog. Mm. manager am toog. Mm. conseil de discipline bi toog. Mm. ñu enquête ko. déglu ko ba pare. xam li mu wax yi yenu na maanaa wala yenuwul maanaa. Mm-hmm. ñu soog a nag jël décision. mais njiit du gaaw a décider. kon Alioune Seye 2 ak ñaq jariñu non ci loolu. loolu moom wax naa ko waxati ko. Alioune Seye junior. deux Alioune Seye deux. Mm-hmm. ñàkk jëriñu. CNG li mu def tegu ko fenn. ndax tegu ko fenn. non njiit du top ay sentiment problème am na rek ñu wàcc wéy devant le ministre dugg na fi làmb yàgg na am coow. Mm-hmm. automatiquement dimanche lundi ñu xëy ne aj nañ ñàkk jëriñu ak waa écurie xam nga loolu dafa yenn wut maanaam. aj nañ Alioune Seye euh, deux six mois. téye seeni reliquat wax dëgg neex yàlla bien vrai que ni sentiment baaxut si jiite waaye il faut nga am tuuti xol sax pour xam ni ngay defee gars yi parce que tey amateurs yi mbër yi leen indi dagg nañ seen billet ba ñëw donte mbër yi bëriwuñu problème am na problème ba man dama jàpp ne tey matuwaay yi war suñ ko teeloon a jël du àgg foofu kon yan matuwaay. non bëri na yooyu yëpp si réforme yi la bokk. ok euh, ñamal ngañ si tuuti ah mais tey Alioune Seye 2 ak ñàkk jariñu pour yow euh, ba affaire yooyu amee tey bu doon Kéba moom moo nekk euh, ci bopp CNG bi nan ngay def yow. dama leen di entendre. ñoom ñaar ku ci nekk. Mm-hmm. ñu mëne l'enquête xool site yi fa ne yëpp. ku ci nekk angle bi nga bër jële coow li ba xam exactement li indi coow li. Mm. jàppaat jour ñu dem bëri ci remplir seen contrat. mais yaa ngi feeñal secret de. après nag. Ah. ku ci sanctionné. Ah. dagg sa xaalis. Mhm. wala ñuy aj la ñu def ko. ok ah. mais kon ni ñu ko defee daal du yoon. jàpp naa ni du yoon sama xalaat laa wax nag. mën naa am ñoom am nañ seeni raison. mais man jàpp naa ni. du mhm. yoon. grand contre petit noo gisee. non ñoom ñëpp ñoo bokk génération làmb yàgg na ci loolu. ëmb seen bëri na fekk su lay dop premier janvier. Uh-huh. yàgg na ci Tyson Junior ndem si yàlla yàlla na ko yàlla yërëm. Uh-huh. bëri na fekk Ibou Ndafa. Uh-huh. bëri na fekk maam Njambaat. non kii Simel Faye du moins Boy Naar bëri na fekk maam Njambaat loolu yàgg na fi. loolu du tey lay soog a am nit ñi ñoo ko bëgg bon léegi sit yi bëri yooyu ñu naan grand contre petit. Balla Gaye bëri na fekk Boy Sey. yooyu yëpp am na fi Boy Kayre. bëri na fekk bàcc seraas. ok kon daa ñëwaat daal. non loolu lu yàgg ci làmb la maanaam làmb dangay gis ñi yéeg ci kaw. Mm. ñeneen ñi ñëw. Mm. ñu jaxasoo bari seen biir. Mm. récemment rek Sa Thiès bëri na fekk nees. loolu yëpp grand contre petit kon donc ay combat yu war a taxaw la rek taxaw. Mm-hmm. ñu ne mbëri VIP yi ñoom ñoo yàq làmb ji parce que ña nanguwuñu euh, wàññi seen cachet. mais attends nañu waxante dëgg làmb képp ku ci nekk yokk nga bëgg. ku si nekk rek adversaire bi nga war a bëreel am na prix am ndax tey mbër luñ ko mënti waxal la muy jël si risque dañu waxante dëgg mais tey soo demee box li ñuy fay boxeurs yi mais xel xalaat du ko ci la am football kazalika te làmb gën a metti yooyu yëpp day fanaan yow kese mu metti chaque jour nga boole si di sangoo ay ndox yu sedd lu ne nga dugg ca di préparer wu uniquement pour benn trente minutes lu ñu la fay jar na ko loolu moom bu ci nit ñi di wax ay VIP ak yooyu mm-hmm. VIP yaa nga xamante ni ñuy bëre ba et ñuy wax ñu ne mbër yi lu ñu si mënti wax euh, li ñuy indi si li ñuy li ñuy seen supporters yi di dagg si biir fay leen mm-hmm. mais xam nga loolu du wax parce que tey mbër mu fi jug xoolal Modou Lo suy bëre xoolal Balla Gaye suy bëre xoolal Boy Niang xoolal kële Ama Baldé mm-hmm. mais li ñuy indi ci mbooloo bu xam ne mu toll mais sponsor loolu lay war kon yooyu moom nañu ne ñoom yoruñu ñu leen tëggee. Mm. mais buñ leen wax naan ay da ngeen war a wàññeek yooyu. Mm. loolu moom suñ koy négocier nañ ko négocier si suuf parce que loolu yàgg na fee am. ndax danga nga daan gis mbër promoteur bu ñëw fay mbër 10 millions. ne ko déclaré 30 wala 40. ok loolu yëpp parce que non loolu amoon na ci lamb ndax boobu sponsor ba lay yooru. ok yaa ngi dégg. Mm-hmm. léegi nag loolu day tax ba mbër mi à un day dem ba fippu. suñu laajee lan la mujjee bëri ñu ne 40 millions beneen promoteur day ñëw ne fay naa 50 mais loolu business la. loolu yëpp Tyson na ko fi indi moo ne làmb business la. Mhm. kon bu ñu fi nekk naan dañuy wàññeek lool parce que keroog gis naa bi <laughs> Alioune Sarr di wax naan euh, gars yi promoteurs yi ñoo yàq làmb ji parce que ñoo doon ñëw di fay waxoon nañ leen li ngeen di fay ma gis Tyson di xool fa fële. <laughs> <laughs> Tyson d'accordul ci loolu. Ah, day xool il faut mu xool fële mais bi ñu waxee waxi tournoi rek. Ah. ne roi des arènes tournoi yi rek mu ne mbër yi retraité parce que boobu moom ah. ku ko fayoon fi toll nii gars seen CNG changé woon affaire gars yi fay ko benn 200 millions bu dëgër. day ñëwaat non ñeme na bëreeg ku nekk de <laughs> Alioune Sarr sax ñeme Tyson ñeme na bëreeg moom. waaw businessman la moom <laughs> guerrier la waaw. <laughs> non yow da ngay maamoo père Alioune maa ngi koy nuyu bu baax di ko féliciter si li mu def si làmb yëpp. Mm-hmm. di nuyu Tyson aussi euh, di ko wax aussi vraiment moom liggéey na ci làmm mhm. di nuyu Bombardier di ko félicité si victoire am bi mu mhm. jógee mhm. di nuyu le grand Yékini di nuyu képp kuy mbër yaa ngi wut jàppale nag. képp kuy wër mbër yaa ngi wut jàppale de. képp kuy amateur képp kuy promoteur. ñi ma ci ñi ma ci ci bëgg. ñi ma ci bañ. yow gars yi ñu la dóor ngay dóor. waaw mais garaaw <laughs> am ñoo xam ne dañ maa dañ ma cee bëgg. Ah. am na ñoo xamante ne dañ ma cee bañ. Mm. mais MMA di nga ko bisoo ne ko président CNG. di ngeen di fi MMA dama ko ciy boole waaw. mais am na ñu ne MMA baaxul day yàq. lan la yàq. du du du jànjee ko nee na MMA baaxul dafa agressif. xalaata ah, làmb gën a agressif. wër na ma nit di ko dóori ay kurpeñ. <laughs> nee fii dañ lay xoj. Oh, nee na nee na MMA baaxul fii de. Mm. làmb mm. am nay risque MMA am nay risque. yaa ngi dégg. doomu Sénégal yaa ngi jóge fii di dem extérieur. di wut di fayeeku. jàpp événement foofu di gañe. yaa ngi dégg làmb aussi. mais yow ñaata gi mbër nga fi gis ñu dóor leen kurpeñ ñu ne këpp. dama seen tout rek su si arbitre bi jàppul woon mënoon na dem wuy ji te ay risque la. Mhm. yaa ngi dégg. MMA sax xam nga làmb. la nekk ci risque kenn mënu koo wax. Mm-hmm. ndax liggéey yi ñu lay liggéey rek. <laughs> moo tax bi wax nga pare de. <laughs> yooyu yooyu yooyu mën na lor ko ne. Mm-hmm. waaw moo tax mm-hmm. loolu ay risque kay fépp la am. kon lépp risque la sa oto la. parce que benn camion mën naa manqué frein sa kaw. loolu yëpp risque la lekk ak naan sax risque waaw <laughs> ah, maa ngi nuyu ñi nga xamante ni aussi fekk nga leen fi. Mhm. muy sama grand mayekoor. Mhm. di nuyu waa jaxaw xam nga waa Fatick di nuyu waa Louga bi ma dëkk. Mhm. di nuyu waa Touba waa Mbacke sama dëkk Jabar. di ko nuyu moom. Euh, moom neex a faral sama jabar neex a faral lañ ko tuddee. sama a di nuyu suma doom nuyu suma yaay suma papa di nuyu waa adduna yëpp. di nuyu waa làmb surtout xam nga. di nuyuwaat encore une fois président Alioune Sarr. Tyson Thierno Ka borom ñàngal yi. ngi duur rek day ñàngal rek. <laughs> per Thier jantal per rek moom moom moom sama papa bu baax la dama koy mm-hmm. nuyu bu baax. Mm-hmm. xam nga di nuyu aussi képp ki nga xamante ni rek. tey sa xol ak sa xalaat def nga ko ci biir làmb mm-hmm. nga ànd ak ñun suñu position ak nga ñàkk ànd ak ñun di féliciter aussi Gris Bordeaux da nga koy féliciter koy féliciter parce que tey lu xew ci làmb jug na ci dox ko moo ngi assumer son rôle waaw mm-hmm. ah, maa ngi koy félicité bu baax. Mm-hmm. waaw balaa may fàtte di nuyu Père Gaston. <laughs> sa xarit yi da koo fan quoi. non mais ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk kii ñoo bokk dëkk luga benn ñaareel bi. Mm-hmm. Père Gaston moom. képp ka nga xamante ni am na ak yow problème. ñemee woo leen ko nag Père. Eh, dalay dem enquête li muy njëkk a def mooy enquête la ba xam dara si yow <laughs> ñëw topp wax. moo tax nangu woo wax si Père. lan wax moom. moom waxut ci man. lu may wax ci moom yaa ngi koy de. non daw ma ko de non père après naa ko jëlaat benn pour mu wax li nga bëgg a tàbb ci kii bi. non non na wax a ah, man su ma attaqué nag <laughs> père soo ma attaqué. yaa ngi daw père Gaston de. <laughs> daw ma ko de moom sama père la moom. Ah. moom sama papa la sama xarit la. Mm. yaa ngi dégg mm. jàmm nañ seq ak salaam. Mm. bokk dëkk Louga. Ah, mais woo nga ko ne ko da nga bëgg a tàbb. ma ko nag waa dëgg na yàlla. doo ko woo. non na xarit bi rek. <laughs> père mën nga ko woo fii mu wax la la nga xamante ni xam nga te ñun deretu xale ba nekk si ñun. ah na ah. wax dëgg neex yàlla. parce que ma yoree jokkal daanaa ko woo. Mhm. wax dëgg neex yàlla mu tëgg ko. waaw nit ku baax mhm. nga mën a peinture moom moom su la peinturee dootoo jaarati fenn xam nga mais moom mën na laa peinture tey. Mhm. suba tamit mu lasewaat la diluant la ba nga set. moom moom suñu père la. moo tax ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñëpp daal. nuyu son benn xarit Talla Sène xam nga Talla Pëna ñoo ñëpp ay nitu la làmm nañ. xam nga di nuyu tamitam promoteur yëpp da A a Z. xam nga di si nuyu ñi nga xamante ni tey jii ñoo ngi sonn si làmm. di nuyu kenn nag ka nga xamante ni. tey dañ ko waroon a décorer ci làmm. muy Serigne Modou Niang. billahi mi indi embouteillage kii ki taw mi xool fi muy génn. non dañ ko war a décorer ci làmb ndax ñu war koo décorer ci làmb champion boo fi dégg. Hmm. daanaka sëñ Modou la génne. ok ba sëñ Modou. waaw Kéba mi ngi lay dóor de. père maa ngi lay nuyu bu baax a baax moom sama papa la. Mm-hmm. dëgg neex yàlla nit ku baax la. Mm-hmm. nit ku sedd. Mm-hmm. nit ku yiw. yaa ngi dégg nit ka nga xamante ni wax dëgg neex yàlla doo ko dégg ci dara. léegi ñëppay dóor. waaw di ñaanal yàlla aussi Luc Nicolas. fi mu nekk. ay waay mu yàlla génne ko fa. di ñaan yàlla président Macky deux mille et quelques prisonniers yi mu gracié. nañu si ah? boolewaaleel Luc Nicolas mu bokkaale ci génn. xam nga di ñaan yàlla yàlla. aar ñu sàmm ñu musal ñu si coronavirus di profiter si occasion di jaale aussi waa kër Tilala Fall mhm. Cheikh Tilala mhm. di ko ñaanal yàlla fi mu tëdd mhm. yàlla na ko yàlla yërëm yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe di jaale aussi suma benn xarit bu génn àdduna semaine bi ñu koy wax Ibrahima Ba waaw ñaan yàlla suufu yoof sedd si kawam di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mm-hmm. di jox mention spéciale sama yaay mm-hmm. di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. ak neex a faral ak neex faral looy xosaare wasaare. Ah. bon continuer leen di wasaare rek <laughs> yéen moom yéen moom yéen a ngi wasaare xam moo ngi euh, ne moom bu leen wasaare suñu làmb ji xam nga ah. mais man wasaare bi ma jàpp moom ah. ngeen yore moom mooy yaatal ngeen yaatal làmb ji waaw moom nag comprendre moom moom wasaare xam nga moom jeexkat daf ma sonal moo tax nee nga wuti jëkkër te nga bàyyi làmb te nga bàyyi mbëri moom <laughs> moom eh, yaay sama garaat te xamul ne suñu kii yow yaay ci da ngay sonn nee ko nee aussi moom itam xam nga comme moom nee na yow nga bàyyi làmb ah. dem wuti jëkkër <laughs> nee looy wut ci làmbu ji nee ko moom itam ah. nga dem retraite <laughs> te yaa may maye te maye boobu waaw maa jeex na kon merci beaucoup. l' <laughs> euh, émission tire à sa fin Basirou ñu koy remercier waat bu baax a baax moom Kéba mu nekk frère boo xam ne ku baax la kon li may wax rek moom dalay topp di la conseiller defal nii defal nii di jàpp na di ci jàpp bu baax a baax a baax a baax moom di ko ñaanal jàmma ah, moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed yàlla yokk ko ba mu yëg ko yàlla yokk teraanga yeeg yëpp yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wax dëgg yàlla ku disponible la Kiki maa ngi koy nuyuwaat bu baax a baax naan la yow jàmm si yow borom borom kii yu naay si borom image yu naay si li may wax kenn du wasaare di wax rek ah wasaare lamb wasaare TV nii la ñuy def di xool yi nga xamante ni moom ngeen bëgg ñu leen koy indil Keba Kanté lañ leen indil bëgg ngeen ko kon li may wax rek Fatima Kese mais di bëggewaat bu baax a baax ah suñu waa ji ah disponible kii baax mooy bu bëgg a dee wax dëgg yàlla moom jàpp na ci quoi parce que ngi koy waaw ñu koy remercier bu baax baax a baax ak di di remercier ki nga corona <laughs> corona maa ngi koy bégee mooy bu baax a baax mooy ku baax la kon li ñuy wax rek lu dul jàmm jàmm ko gën kon yàlla nañu yàlla may jàmm Basirou juuf yow nekk si jàmm rek ah di bëggewaat waa Touba waa Mbacke ñëpp ñu ngi leen di bëgg su ma waxee Basirou xaw ma foo ñu <laughs>